concours national jongante alxuraan bi nga xam ne waa Sénico ñu koy amal ñu tollu jamono bi ci présélection yi gone gu jigéen gi nga xam ne mi ngi wuyoo ci turu Seynabou Ngom moom moo jël raw gàddu gi final départemental bi ñu ko doon amalee ci Mbàkke tànnoon ci bërëb bi nga xam ne moo di daaxu Salaam doon amal tëj teg final départemental yi ndax loolu dafa nekk lu bees lu ñu indi ren mooy dañ ko tijjee woon Tiwaawan mais ñun ñëpp ñu dëppoo defee ko fii ci Mbàkke waaye ñu tànn tam pencum Daaru Salaam dara jaale ko ki nga xamante ni mooy Serigne aboo Mbakke gis nañu bis la boo xam ni bu doy waar la ci ñun ndax liñ séentu woon ci xale yi gis nañ lu ëpp loolu kon xale seen niveau gis nañ niveau bu baax la njàng mi tege na ci aw yoon loolu tax na fi mu ne nii département Mbakke cinq la waroon na présenté mais dina présenté dix candidats fi nga xamante ni mooy final régional bi nga xam ni moo ñuy dëgmal fii ci Diourbel ci weer wii di ñëw incha allah. tànn gi dara war lu ko ludul dëkkub alxuraanul karim. mooy dañoo xam ni dëkkub alxuraan la dëkkub sunu maam xaadimu rasul la ku ne xamoon taxawaayam ci alxuraan ak fi mu tegoon alxuraan kon njabootam jaadu na bés bu mel ni dara jaale leen ko sëriñ Ablaye Ja mi nga xam ni moom la yàlla baaxee mu organiser concours bi ci alalam sëñ aboo mii dëkk Daaru Salaam di sëriñam kon dana jaadu jagleel ko bis mel noonu ngir terale ko sëriñam. mbooleem gone yi nga xam ne ñoo doon jongante ci final bi nekk ay jàmbaar lool waaye am ay critères yoo xam ne moom lañ leen doon tànnee. candidat yi lañ leen di tànnee mooy bu ñu ñëwee dañuy préparer question yi dinañ leen laaj ci kaamil bi yëpp kaamil bi boo ko xoolee juróom benn fukki isib la ñaar fukki isib yu nekk ñu am fa benn laaj bu ñu leen laaj bu ko defee xale bi bu jëlee ñetti laajam tontu ko wala mu juum ci loolu jury bi da koy noté. bu ñu paree ñu xool kenn ku ne li nga am ci ay bu ñu ko calculer pour nga mën a qualifier minimum di nga am cinq points soo amee 65 points jëm kaw yow qualifié nga su boobaa nag ñu xool 5 premières yi wala 10 premières yi kon ci anam googu la ñuy tànn xale yi tatam tam ñi leen di tànn tam kenn dëkkul Mbàkke ay étranger lañ ci ñoom ndax ki ngay àtte boo ko xamee doomu aadama xolam dafa gaaw a sot moo tax ñu indi ñoo xam ne dëkkuñu Mbàkke xamuñu xale yi xale yi xamuñu leen. kon anam googu lañ leen tànne ren ji nag final concours national jongante alxuraanul karim bi waa Sénico fas yéene indi ay neexal yu takk lool jagleel ko ñi nga xam ne ñoo jël raw gàddu gi. xale yi gën a ràññeeku incha allah ren euh, P bi dana am euh, ñaar fukki millions maanaam ki jël P dina am 20 millions plus billet Makka euh, loolu mooy loo bi gën a rëy deuxième bi dana am 10 million tam ak billet Makka troisième bi am 10 million quatrième bi am 8 millions cinquième bi am 6 millions loolu mooy xaal xale yi ren incha allahu taala jamono bi nag li ñuy tudd daaray alxuraan yi bëri lool ak ci njàngin mi loolee nekk lool kilifa yi nga xam ne ñoo yor jongante alxuraanul karim bi te nekk ci daara yi daañu amal ay lël yoo xam ne daañ ci waxtaan ngir indi ci saafara waaye kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi incha allah taala ñu ngi préparé ay jotaay waxtaanaat ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu séq ak ñoom liggéey bi pour xool ay saafara yom danañ ko indi ba coow yi nga xamante ñi ngi koy dégg te loolu jigul daara ñu xool nuñ ko mën a saafara ba lépp tegewaat ci aw yoon euh, ñi ngi koy tëjee incha allahu taala fële ci Kaolack foofu mooy tëju finale régional yi mais grand théâtre nag mooy tëj tëgu mag gi kooku mu ngi nekk dimanche le 3 mai 2020 yéen ñëpp tam ñu ngi sàkku seen teewaay soxna Seynabou ngoom mi nga xam ne moo jël raw gàddu gi ci tëjteel final départemental bi nga xam ne ñu ko doon amalee ci Daaru Salaam rakk la ci soxna Maam Jaara ngoom mi nga xam ne amoon na raaya ci jongante alxuraan ci àddina bi